bëgg nañu góor gu koy def am mbaggam génn mbaggum ndey jooram bëgg nañu su ko mënee ñetti yoon yu njëkk yi mu ñug waxuñu mu xelu waaye mu yëngal aw yaramam bu ñett yi matee mu dox dox bu simple mu doon dox boo demee ba agsi nga ne am naa benn boo waraatee ba agsi nga ne am naa ñaar noonu ngay def ba am juróom-ñaari yoon jigéen nag du ñukk góor moo fay ñukk ndànk-ndànk amu fa lu spécial nag lu ñuy wax comme neex lu la neex nga ñaan jàngal xuraan julli ci yonent bi ñaan say soxla ñaan li nga ragal nga tàggoog moom li nga bëgg nga ñaan ko ba baa ngay nu mott yi am na benn koñ boo xam boo ca accès moom da bàyyi li nga doon ñaan lépp di wax rabbana aatina fi dunya xasana wa fil axirati xasana wa qina adabana moom ngay wax ba agsi fi nga tàmbalee woon nga daan ne bisimilah allahu akbar bisimilah allahu akbar ba muy ñetti yoon nga daan am naa benn kon daal di continuer defaat beneen loolu la neex na ñaar soo soo defee juróom-ñaar ba mat nga sant yàlla julli ci yonent bi daal di julli maqaamu Ibrahim maqaam Ibrahim nag léeg-léeg doo ko mën a dàkk ni côté bii waaye foo jullee ci ginnaam rek baax ndax dana xat-xat goo xam ne gi léeg-léeg dem ba ca moom nga julee fa du mën a am waaye fexeel ba si diggante kaaba gi na fi dox nii baax na nii baax na nga julli fa ñaar rakk ñaar rakk yooyu nag mooy yi nga julli woon bi ngay armal ca biir ca masjid Aïcha ñaar rakk ya nga ca jàngoon moom ngay jàngaat alfatiha qul yaa alkaafiruun alfatiha qul wallaahu ahad boo ci sëlmalee li ngay dese mooy dox safa marwa bu la neexee naan zam-zam door a dem bu la neexee bañ ba demee safa ak marwa ñu ngi tàmbalee ci Safa di jeexale ca Marwa wax sa Safa xëy na gidd yaa nga fa incha allah daañu wax la ñuy wax bu ñuy tàmbali daal ne bismillah inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima faman tatawwa xayran fa inna allaha shakirun alim daal di tàmbali foofa it amul ñaan bu spécial yaa ngi dox sama ak marwa ñaanal sa soxla yëpp ñaanal sa aajo yëpp ñaanal sa bokk yëpp waaw ñaanalal ñëpp te ñaanal Oustaz Alioune Sall ah. waaw te ñaanal ko waaw nga <laughs> ñaan yàlla cinquante deux milliards yi muy ñaan toujours mu jot ci ngeen ko ñaan de ngeen ko ñaan te wax ko ca kaw yàlla bu verte bi dañ ko def làmp mu tàmbali fi fële bu góor ñëwee ñoom dañuy ñëw góor ñi ba làmp ba jeex nga door bu dee jigéen nag moom du ñëw moom du ñëw jenn jigéen mas na ko mas na ma koo laaj ji mel ni soxna bu rëyatu bi ne ma waaw lu tax nun jigéen ñi duñ ñukk ma ma ne ko yéen xaajara moo leen ñukkaloon comme Ibrahima ñukkutoon nag mën nu ñukk mun wax nga dëgg de mën na ko jeex na kon yéen jigéen du ñun ñukk nun nag dañ ñukk ñukk juróom ñaari yoon yëpp saa boo accès ca ca ca lamp ba da nga ñukk boo demee boo demee ba Maroc nga ne benn del si ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar kon soo seetloo yaa nga ale ca Marwa léegi sa umra jeex na bu dee góor bu ko neexee watu nel bu ko neexee jëm bu dee jigéen mu dajale kawaram dagg ca cat la tuuti te bañ koo dagg ci biir góor ji moom ragal daal di jeex mbokk du dëgg bu ñu tollee biir àll nag xaw ngeen baal ma bu tollee masjid Aïcha te nga nar umraal nit foofe nga koy fase labbayka allahumma umratan an muur xujja bu fekkee muur xujja ngay umraal labbayka allahumma umratan an nogay bu fekkee nogay ngay umraal <laughs> boo naan labbayk allahumma rek da ngay wax turu googu da nga naan an wax turu googu bu fekkee moom ngay umraal bu fekkee sa bopp ngay umraal umraal nag jarul wax lii mooy umra incha allah bu nu ko naalumaayee dañu ko fàttaliwaat ndax fàttali gi am na tuyaaba ci man peut-être am njëriñ ci yéen te am tuyaaba ci yéen yan nu yàlla nangul bu ngeen ñaanalee oustaz ba noppi nag ngeen ñaanal Air Sénégal waaw ngeen ñaanal Air Sénégal mu am ay appareils yu bare bare bari yoo xam ne euh, danañu mën a couvrir sunu aj gi nuy jógee nuy jógee Dakar añ si añ si Jidda waaw Eh, man xam naa daa danaa faral di tukki dëgg yàlla waaye su ma duggee ci yenn avion yi bi bi ma am nii ni may neex yooyu du ma neexee noonu wax naa ko jenn waay sàmm bu ma duggee avion dinaa ma cikit cikit café café cikit du xam ni ñu wax chicken la lu leen may wax de chicken chicken loolu bi loolu mooy la ginaar wala ginaar <laughs> man xaw ma wax damay toog rek buñ ma jox ma <laughs> jël waaye gone yi dañ ne ma papa loo loo loo loo sox loo bëgg waaye boobu kay wax dëgg yàlla boobu laa moom man boobu laa moom yàlla xam na man de su yor naa ñaan boo xam ne na ko tëb mu ne tëb su ma su ma wëree Kaaba ga ba nëpp ji xam Ibrahima danaa ko ñaanal Air Sénégal yàlla xam na sama yoonu daaw am na ku ne ci gars yi sax bokkoon na ci avion ba damaa ñëw Malpensa di jël Air Sénégal yenn waay taxaw fa ma vraiment Air Sénégal da ngay waru parce que day am retard te duñ baale duñ baale bagage wax ba jaxat na ma ah ma kontaan te tontoogu ma ko yàlla xam na maa ngi dégg dégg dégg te doon dëgg moom man ko gis nga li la dérangé ci Air Sénégal daf ma dérangé retardam yii mën naa ko muñ yii mën naa ko muñ ndax bëriwu may bagage te it nag ña koy dawal ak ña ci nekk ci biir ñëpp moo munu ko nun doom nun ñëpp ba ko moom kon nag mu ñaanal leen mbokk yi damay taxaw foofu balaa leçon bi ëpp am na laaj bu doon laaj waaw tontuwal naa ko.